taay yoo xam ne yu opposante la kii dafa njool lool kii gàtt ba àgg ci digg nit ñoom ñaar ñu war a bëree lan nga ñuy wax ci combat boobu. maa maa ngi nuyu sama sama doom jooju Siteu. yaa commencé far de. man déggoo lu ma la wax boo ma laajee mbër boo xam ne xam naa ko nii damay wax ci moom li nga xamante ni respect la. lu mu dee dee Siteu bu mu nekkee xale combat mi njëkk ya saa yi daanee danaa ñëw fii ci man ànd ak ànd ak caat xam nga caat magam la boobu maa yor caat da daan ñëw ci man bu Moussa ñëw ci man ma ne ko Siteu fi nga jëm ci làmb doole ji bare la fa yóbbu boobu xale la boobu man xam naa yàqu Siteu yo xam naa Siteu fu nu muy meli te bu li ma lay wax ay ati at ma ne ko Siteu fi nga jëm ci làmb doole ji bare la fa yóbbu jamono dox na dox na ba ñi bu ñuy mujjee daje maa ngi naan ko Siteu société nga bul nelaw ñu yaakaar ci dafa bari li nga war a defar dafa bari Eh, ma koy nuyu en passant cité sama doom jooju li may wax ci cité dafa yomb eh, combat bi mu waroon bëreek Papa Sow gisoon nañ cité indoon na état de form bu baax indi woon na état de forme bu baax non max nag dinañ taxaw foofu parce que dama gis spécialiste yu bëri dañu waxoon ni Siteu état de form bi mu indi baaxul ba Papa Sow naan ko bi ma gisee sa état bi damaa kontaan. boobu avant la bu koy bu koy Papa di wax loolu après Siteu dem na liggéey waat mais le jour ji indi na état bu baax. waaw xam nga xam nga li ma lay wax rek site mun na entraîner bay bëgg a dee te doo ko séen ci yaram bi parce que musculon la yor yaxu Siteu yi du caaxaan moo koy feesal dafa laaj entraînement bu doy waar mais boo xoolee combat boobu góor-góor lañ ci woon ba am dara li nga xamante ni mënoon na bëreek Papa Sow donc de pense que ni foofu bu fa delloo tey yokkat ay entraînement rek. mun na indi lu am solo ci entraînement bi Papa Sow day bokk na ci moom it maa ngi koy nuyu parce que <laughs> euh, waa Fass la te xam naa ko bu baax donc mu nekk benn mbër bu sérieux mbër bu am hygiène de vie et instant bi li ma gën a neex ci Papa nag dafa am benn mbër bu naan Baara Ndiaye bu nekkoon faas sama salle la nekkoon sai papa so dan bere nam kuchi lo lo gise papa man ko papa eta bu mu nek de etam eta bara man ko ben bi mi ngi don bere ka la de guerre def na la de guerre man ko li eta papa parce que papa lu muy gën di nang di ñak bere ci ton technicien mais papa bo xolé mu melni ku jeex papa bobo dangereux donc papa âge bu mu toll ni vitesse la gën a soxla rapidité bu bu bu am solo ak contact bu toog ak musculation bi nga xamante ni day day day day day juste mooy li ma la wax rek dugg saal def fa benn 45 minutes génn day tax sa bëree lépp lay def day adopté bëre bi mais tey booy tàmmee saal di fa def 2 heures de temps noonu ngay taxawee ci géew bi rek. mais en ku mën a bëree Max par xam nañ ni yow mën nga bëree. Ah, fooy bëre moom. Papa Sow Siteu ci bëree bi kan moo ci favori bëree Papa Sow munu euh, Siteu munul nekk ci bëree euh, Papa Sow Fobri munul nekk. kon Papa Sow mooy favori. non Papa Sow. Papa Sow 30 secondes. Papa Sow Papa Sow Papa Sow lu munti am yàlla mooy xam kuy daan mais ba luy am Papa Sow mooy favori. mooy favori 30 secondes Bombardier euh, taxaw na ñu am fu mu jaaroon fas yéene faa jaaraat lan nga ñu wax ci combat ñaari super luy war a dajale. waa mais mais ñaari super daje woon nañ ci ay at yu bari at at bu yàgg bëree dóorante bu bari am na ci mais combat bii ñu jëm ci nii ah man de bu ma doon tafaatin du ma bëree woon du ma bëree waatoon. du bëree waat moom déedéet. Ah, jeexaat foo jëleb doom delloo fa sab loxo. Tafa ko mayoon ndam boo ko bàyyiloo ba. déedéet Tafa daa war a ñëw bëreeg bombardier. contact. daa war a bëreeg moom. maanaam bu amee buntu waxuñu doo dóor waxuñu daa xeex mais Tapha bu buntu amee dafa war a bëri bombardier man man loolu laa gis. yow loolu nga gis yow. waaw bombardier lan la war a def. bombardier li ma leen waxoon laay wax rek bombardier làmb lu juste rek lay indi du indi lu ëpp léegi lu juste rek lay indi maanaam li concerné jour góoyam géré ko ci mentalam. loolu la dese ci làmb parce que tey ñu koy nuyu à passage bombardier bombardier tey bu demee ba bañ koy wax léegi-léegi ci làmb ñu bëri war nañ xool ci moom parce que taay bi bombardier yéen dafa jafe donc kooku boo gisee ba léegi ñu taxaw ñu am bombardier ñu ngi koy jox xale bi ñu ngi koy jox xale ji hygiène de vie sacrifice bu bari bombardier def na ko ci laay fam kon dañ koy waxal bravo mais daal combat boobu li mu gën a gis Tapha Tine dafa war a ñëw a bombardier bombardier moom lu juste rek lay indi lu juste rek lay indi ci làmb looloo ko dese waaw moom day ñëw li muy li muy li maanaam du fi nekk ñu naan ay bombardier moo dàq bëri moo dàq xeex bombardier lu mu am pour daan la baax na merci beaucoup mag maa ngi lay sant Sa Thiès Reug Reug fàtte woon naa ko sama technique sama caméraman bi nee na Sa Thiès loo ñuy wax ba pare Reug Reug ñu gis ci moom xale boo xam ne nii dafa jigi rek bokk dafa jégi-jégi gaa yi sóoraale dañoo jigi rek mu dugg seen biir lan mooy faral di war athlète bu mel noonu jékki-jékki rek bokk. rëg-rëg ma koy nuyu en passage mus na fi ñëw. man mbër boo gis maanaam la maa ngi koy nuy rek mus naa ko gis mus ko gis boobu xaritam yi nekk fii yi ak euh, euh, ñoom jibi ñoom ñooy ak bilaal ay xaritam na ñoom mbay waa ñoom mbay ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ma indi liñ fii rëg-rëg ndeysaan bëgg Reug Reug trop nag mais xam nga Reug Reug moom teel naa am benn dem na sonn ji ci am doole trop waaw Reug Reug dafa musculation bi mu ngi ci liggéey bu baax a baax a baax a baax donc mu nekk benn mbër boo xamante ni moo tax Reug Reug pratiquement boo leen jàppante tout diir bu xaw a yàgg da ëpp avantage parce que Reug Reug ni muy entraîné moo tax. mooy li nga doon wax sànq quoi. waaw. ah yaa ngi ñëw ah, waaw man boo may suivre rek samay wax xam-xam la dangay dégg ah, ah, mu rek rek ni muy entraîné jàppante bi bu xawee yàgg tuuti day am avantage moo tax rek te xam nga dafa mën a bëree am jàpp mbëru mbëru mbapat la Sa Thiès <laughs> li ma ko daan wax rek laa koy waxaat ñëpp xam ne dafa mën a bëre macha allah ñëpp xam ni dafa gaaw macha allah ñëpp xam ni Sa Thiès dafa sañ-sañ mais li ma ko doon wax rek euh, booy dem ci xare maanaam li ngay def yi bu ko wax mais kenn tere la bu àll bi soufflé nga def ko. moom chaque jour day ci biti quoi. waaw noonu la daan def mais mi ngi changé nag. mi ngi changé parce que Sa Sa amul benn mbër buy taxaw Sénégal mënu laa daan ci songom bu njëkk non non parce que boy bëreeg mom pour nga perte équilibre mille fois ci même action day am mbër bu dangereux la mbër bu dangereux la combat yi nga wax yépp ban mo ci sa combat bo xamni ni tay jaral na la rek dag bi dem tok seeraan malgré xamna ni sa jot mayatu la ngay dem làmb mais ban mo ci sa combat yow ban man musuma dem musuma dem ah, kii man xam naa man man damay faral di togn xalé xam nga xalé yi daan top dubalees bu daan bëri ji jóge faar di daw mm-hmm. ñun la woon ay début Tafa Gueye kooku man làmb léegi bu njëkk ba lay gën seetaan que làmb tey léegi làmb bii dama koy seetaan ci télé rek mais man du ma musuma dem stade ma mbëri ci tele ban moo ciy sa combat yi taxaw techniquement boo xam ne nga ni bii daal jaral na moom toog concentré wu seetaan bon am na ñaari combat xam ni dafa mel ni ñoo ñoo gën a ëpp danger ci combat yi su ma juumul muy Reug Reug ak Sa ah. muy euh, gris ak ak ak ak kii. Reug Reug Sa Thiès ak ak ak ak euh, looy tàggatoo Max gannaaw bu la gërëmee sant la ci vraiment accueil bi ñu accueil fii sa salle bi macha allah di wax mbër yëpp nañu ñëw kii. Euh, xëy na mu nu ñu def émission sax di wax ci nit ndax day day mel dañ koy propagandal wala dañ koy kii mais ñun xam nañ ko ndax fii kolobaan yàgg nañ fa trop xam nañ ko te formé na ay champion lan ngay tàggoo. ñi fi tudd seen tur yëpp man booy leen déggee mooy tudd nit rek dama ko naw man su ma la nawul du ma la tudd donc kon tudduma kenn pour wax de mal wala de kii mais espoir la donc tey suñuy xale yi suñuy li ma leen di faral di tooñee mbër bi bi takk ngemb maa la mag du ma xale kon su may wax ñu xam ne coach bi mooy wax su may wax ñu xam grand bi mooy wax donc ku ci nekk rek li may wax ni ñun bu ñun coach bu ñu toogee ci am sens nga ñëw di ñuy laaj mun ñoo jot ci xale yi mais na leen jox conseil ba nga xam dina leen jariñ ñun coach yi looloo ëpp solo ñi leen di critiquer loolu dafa am solo même même damay nangu sax man bu ma la critiquer ba pare après ma ma ni la nag boo defee voilà loolu dina dina am benn équilibre parce que un coach li may faral di wax booy rek

te lépp lu ñu ci wax rek bu fekkee am na lu ci kii comprendre leen ko body max moom coach la su may wax damay wax rek maa ngi nuy ñëpp di nuy waa waa kolobaan nag ah maa ngi sant waa Colobane parce que ñoo ma def li ma doon man toujours dama koy wax waa Colobane eh, am na loo xamante ni boo juddee Colobane ba toll ci yenn niveau yi ba màgg fi yàlla da lay dimbali doomu aadama mënutoo am complexe doomu aadama te loolu Colobane la koy jox lépp fii lay xewee

muy nit koo xam ne ni nit ku vraiment ku jafeelul boppam ku yéegalul boppam te mënoon na yéeg nag ndax vraiment ak euh, fi mu toll nii ci tey ci ci Sénégal ci sport vraiment am na fi ñoo xam ne tolluwun fa te jot ñoom yombul mais moom day borom baax ndax xam nañ ko jërëjëf sama man caméraman Cheikh Ahmadou Bamba jaajëf